liñ bëgg a waxtaanee di loo xam ne eh, ak fàttali rek lay doon inna zikraa tanfa'ul mu'miniin kon fàttali dana jëriñ jullit bi fàttali ak fàttali rek lay doon ndax kenn ku nekk xam nga ne na la ko te eh, ba mu itam ba léegi ba noppi eh, da nga koy taxoo taxoo rek saxoo ko ba keroog ngay dugal mu àjjana muy lan tuubal yàlla baatu asafullaha doole ji ak ngëneel yi nga xam ne alquran dafa wax ne istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran sama aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaali wa baniin wa jannaatin wa anhaara la alquran indi kon li nit soxla ngir set ci bàkkaar istifaar mën li nit ki soxla ci yàlla ful ak wërsëgam istifaar mën na ko li nit ki soxla ngir yàlla ful alalam istifaar mën na ko li eh, nit ki saxoo yàlla may ko njaboot istifaar indi na ko li nit ki saxoo ngir yàlla dafa ko xéwal yooyu yëpp istifaar mën na ko nga xam ne dañ ci juróom yoo xam ne euh, nit ki bu saxoo istifaar suñu borom defal ko daa iman euh, dundam teey dundam texe dundam neex euh, bi ci jiitu mooy sababul maarifati sababul maxfirati sababul maxfirati mooy day sabab si nit ki suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram ndax bëri waa na koo xam ne ay bàkkaaram ko yóbbee feebar bi mu nekk wala ay bàkkaaram ko yóbbee xat-xat yi mu nekk wala ay bàkkaaram ko yóbbee euh, tolof-tolof yi mu nekk kon su dee def istifaar rek suñu borom teggal ko bàkkaar yooyu bu bàkkaar yi tegg ko euh, mu am euh, aafiya aafiya nag lépp lu baax dugg na ci biiram benn ñaareel ba saw nusul matale mooy dana sabab eh, ab taw ni ki fu ñu defee istifaar di yéene ci suñu borom wàcc fa taw dana naat dana taw kenn du xam fu ndox mi ndox mi nu muy toll kon istifaar dana ci baawu naan eh, saabu risque wala am amwaan dana sabab tam ci nit ki wërsëgu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ak ak ak wa am alal alal nag eh, ay soxna alal la ndax al marab saaliha eh, alal la muy jigéen baax eh, ay ay doom alal la ay tool alal la euh, ay ay oto alal la ay surga alal la kon nit ki bu saxee di def istighfar suñu borom dana yombal ci moom wërsëg mu am ko lool ba dutul jafe ci moom dana waral ci moom itam mu am alal bu mu féete ko ba alal ji wër ko kàpp euh, istifaar sawa sababu li zuriya dana sabab si nit ak njaboot ñi nga xam ne yàlla wërsëgul leen wërsëgul leen doom nga xam ne euh, sëy nañu yàgg amuñu doom gannaaw bu ñu faju itam nañ ci boole def istifaar ba di ñaan yàlla may leen njaboot moo xam leen mënti dal ci feebar yi leen mën a xañ am doom buñ découragé mukk ne feebar bi daal dana waral du ñu am doom nañu boole di ñaan ak def istighfar saxoo ko di yéene ci loolu suñu borom dana leen ko may sabli naxim mooy xewal rek mooy xewal fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira nit ki bu def istighfar dana am fii ci àdduna xewal nag lépp lu baax di dugg ci biir muy aafiyatu muy salaamatu muy xayratu muy yiw yëpp rek day dugg ci moom jàmm wér euh, lu baax yëpp rek day dugg ci biir naxim ajjana euh, itam am na fu ñuy daaru naxim bu ëllëgee itam foofu lay dugg euh, kon istifaara noonu baax na lool nañ ko fonk fonk di ko def suba ngoon fonk di ko def saa su ne rek su amee jot joo jot goo xam ne xaj na ci ñu taxoo ko ndax ën nañ fi yoon wee passé euh, ay yoon istifaar yu bëree bëree bëri suñu xoolee émission yi weesu den ko gis kon dañ leen di wax waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh majaji.